jël ñi nga xamante ni ñoo war a yëkkati ay kàddu monsieur Mbodj maa ngi lay nuyu Dame Mbodj secrétaire général CUSEMS authentique waaw sëñ maa maa ngi lay fay bu baax Pape mbaa yaa ngi si jàmm bu baax maa ngi sant bu baax alhamdulilah alhamdulilah Dame Mbodj ci euh, CUSEMS ci wàllub njàngale bi CUSEMS authentique CUSEMS authentique mhm. waaye tamit Dame Mbodj bokk na ci mbootaay yoo xamante ni la leen tax jóg rek mooy euh, askanu Sénégal li ñor askan bi moo leen tax a jóg mm. daam gannaaw bi nga xam nuyu nañ la ba noppi nga nuyoog askanu Sénégal bi lay seetaan en direct dellu nga kàddu njiitu réew mi la mu wax bokk na ci li nga xamante ni moom lañ gën a mën a jàppandi mooy couvre bi ëllëg dana jeex heure normale yi commencé waat waaye la mu jàpp rek mooy jàngoro bi ba tey mi ngi fi xeex bi ba tey war nañ ko continuer di xeex waaye tamit port systématique masque ñu bàyyi la nga joxe sa xalaat. waaw jërëjëf effectivement déglu nañ euh, président de la république. Mhm. ci euh, discours bi mu def. Euh, sànq nga xam ne doon wax ak sénégalais yi. Mhm. mu wax ni moom levé na état d'urgence bi maanaam daanaka état d'urgence bi sax la ci desoon bëriwul. waaye li ci desoon a kus néew ne na yëkkati na ko. doole na ci ndamit nii euh, couvre feu bi nga xam ni. Euh, vingt trois heures la doon door boobu tamit euh, dakkal na ko. Mm-hmm. boobu sax dafa fekk presque sénégalais yi. Euh, commencé woon nañ sax dakkaloon nañ ko seen bopp ndaxte presque ñëpp seet nañ ni fan yi mm. euh, bu vingt trois heures jotee ba une heure du matin sénégalais yi dañuy kon ne nekk ci mbedd mi donc presque ñoom dakkaloon nañ état d'urgence bi mm. maintenant nag man li may jàpp rek ci discours président de la république nga xam ne répétition yi bëri na ci ay aspects yoo xam ne lam ca waroon def defu ko mm-hmm. li ci ëpp mooy euh, mu ni feebar bi mi ngi fii mm-hmm. nañu nañu kon takk masque yi mm-hmm. waaye man li ma jàpp mooy takk masque yooyu muy def loo nit ñi amul benn politique bu mu ci def mën koo séddale ci anam bu jaar yoon. Hmm. ñuy takk masque yoo xam ne homologué nañ ko. Hmm. loolu amu ci ku nekk yaa ngi defar sa masque yu la neex. Hmm. Euh, de façon bu nekk ñu ngi ko ciy defar ci masque yi te boobaak léegi ñoom ci ut utaguñ ci benn solution. alors que réew yëpp yi nga xam ne ñu ngi demander seen population ñu takk ay masque dañoo am benn programme boo xam dañ ko teg di séddale masque yi. ba noppi du n'importe quel masque la nit ñi takk donc jàpp naa ni. bu nee masque yi nan ko takk te joxul Euh, lu masque bu mu mën a takk kon jàpp naa ne loolu jafe-jafe. Mm. yi amoon rek mooy continuer. Mm. discours bi daal li ma ci jàngat mooy. Mm. président de la république comme dafa déclaré woon guerre. Euh, la Covid 19. Euh, ci discours am bi ñu mujjoon a dégg. commencé woon na wane ni moom. Euh, mi ngi tekki ngànnaayam hmm. waaye ci discours bii bu tey bi moom hmm. dafa def li tubaab di di tuddee euh, lever le drapeau blanc euh, mooy accepter la capitulation c'est-à-dire quoi mooy que ne moom jàpp na ni mënala mëna mënalatul dara ennemi boobu mu tuddee covid 19 kon léegi lu lu golo xam na boote doomam kon daal jàpp naa ne discours bi loolu lañ ci mën a jàngat monsieur Mbodj Dame daam oui bëgg naa yaatal waxtaan bi ak yow waaye dama bëgg ñu dem déglu wolof bi ñu woowaat la léegi rek nga duggaat incha allah. jërëjëf waaw dafa mel ni kon kon wolof bi commencé gul daam. daam waaw dafa mel ni kon kolo wolof bi commencé gul waaye tamit moom njiitu réew mi wax na ci li nga xamante nii c'est que leeratul quoi li ngay wax déggatuma ko mooy problème bi waaw daam yaa may dégg waaw waaw euh, mu mel ni kii kon yow da nga jàpp ne ci biir wax ji bari na ay répétition ci biir wax ji dafa mel ni kii euh, farata daal dafa mel ni ki daal su ma la déggee mooy farata waxu ko ndaxte comme li nga wax li nga xam ne moom mooy euh, couvre bi teggi na ko askanu Sénégal ba tey ñu ngi doxantu bàyyi di une di mate ak tamit wàllu takk masque bi maanaam dafa mel ni gisoo ci farata noonu waaw loolu daal laa ci jàpp man c'est-à-dire euh, léegi daal lu golo xam na boote doomam loolu la président de la république wax commencé woon na ko nag dina ko junj ci discours am bee mujj. Mm-hmm. mais bu tey bi moom lim ñu wax leer na nañ. Mm-hmm. mooy que feebar baa ngi fi ko lu golo xam na boote doomam man mënatuma ci dara. Euh, tekki naa sama ngànnaay lépp li ma ko doon xeexee teg naa ko ci suuf euh, def naa li ñuy tubaab di tuddee. Euh, capitulation mooy faxe na wane naa ne daal mënatuma dara feebar bi et que léegi euh, yéen daal ku nekk euh, na xool lu mu mën a def pour aar boppam mu def ko. Hmm. ndaxte bu nee takk leen ay masque te joxewul benn benn pexe bu sénégalais yi mën a amee masque yu jaar yoon yoo xam ne homologué nañ ko kon jàpp naa ne takk masque bi turu takk masque lay doon rek te ñu bëri duñ ko am hmm. donc man li ma jàpp mooy. Hmm. fi mu nii daal sénégalais yi delloo nañ leen seen bopp. ku ci nekk léegi euh, yaay xool li nga xam ne moom moo la day parce que même ñi mu lim ci discours mooy màggat ñi. Hmm. ak ñi nga xam ne dañoo am feebar yoo xam ne ñooy dund ak moom ñu koy tuddee ci tubaab maladie chronique. Hmm. ñooñu amul benn politique bu président Macky Sall teg depuis début euh, crise sanitaire ba léegi amul benn décision bu mu jël boo xam ne jëmale ko jëmale na ko ci ñooñu pour ñu aar leen. Hmm. beneen bi nag mooy li mu wax ne économie bi la bëgg mu doxaat. mais amul benn mesure exceptionnelle boo xam ne gis nañ ko. mu teg ko ci loxo sénégalais yi lu doy seen xel loo xam ni mën na ñoo am njort ni li mu wax ni taux de croissance bi day jóge ci six pour cent hmm. wàcc ba un pour cent kon Sénégal daal nit ñi mën nañoo tiit xam ne ci ndóol gu metti la ñu jëm da ñëpp xam ni kon léegi daal Sénégal bu ñu moytuwul ci xiif la ñu jëm parce que ku ci nekk euh, na nga jël say matuwaay la wax waaye moom daal nee na moom tekki na ngànnaayam hmm. mënatu ci dara amatul benn solution bu mu am pour xeex feebar bi kon nag ku ci nekk daal na dégg ne loolu daal mooy décision bi xam moom la président Macky Sall jël. Mm. Euh, daam benn laaj laa lay mujjee laaj muy li nga xam ci wàllu njàng meeg njàngale bi euh, classe su examen yi ubbi nañu waaye dégguma benn yoon ñu wax li nga xam moom mooy classe intermédiaire yi maanaam ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yeneen classe yi war a def euh, ay ay ay ay maanaam composition pour passer loolu tamit dégguma ko ak université yeeg ñoom seen ñoom. jërëjëf loolu tamit bokk na ci li nga xam ne moom moo fës ci discours am. Mhm. parce que moom président Macky Sall wane na ni euh, li ma doon wax fa fan yëpp ni président Macky Sall ak nguuram li leen intéressé rek mooy organiser baccalauréat bi pour permettre doomu ba euh, borom barke yi ñu mën a am seen i préinscription dem Europe dem jàngi euh, léegi bu ko defee mu sacrifier doomu baadoola yi. Mhm. loolu la ma waxoon tey laa koy gën a wax donc li ma jàpp mooy lii mu wax ci discours am nga xam ni. élèves bi nga xam ne amuñu examen te nga xam ne mat na ñetti millions. Mhm. Euh, ñee nga xam ne euh, ñoom ñoo am examen rek la wax ñoom la lim te ñoom euh, ñoom ñoo gën a néew ñi nga xam ñoo ëpp doole ci njaag mi muy ja li ñu tuddee classe intermédiaire mooy ñi nga xam ne amaguñ examen ren. Mhm. ñooñu moom li jëntuwu leen waxul seen i wax te ñooñu sax boo seetloo fan yi ñu bëri léegi dem na jël nañ seen i vacances. tasaaroo nañ mbax tey dispositif apprendre à la maison bi bi ministre Mamadou Euh, ñëpp gis nañ ni loolu doxul donc hmm. élèves yi xaar nañ xaar gis ñu leen lañ teg seen loxo ñoom ñëpp élèves jël nañ seen kon jàpp nañ ni moom président Macky Sall décidé na ni comme nee du def année blanche du def année invalide ren te du jàngal xale yi nga xam ni ñoom ñoo am examen ak ñi amul examen parce que même ñi am examen da leen a a sacrifier parce que ñoom ñëpp pare wuñ parce que août lay def seen examen te ñoom mun ñu fee euh, dab dabaatal li nga xam la ma doon wax mooy ni dañuy tebal xale yi ren maanaam du ñu jàng waxtu yan waroon a jàng xam-xam ba ñu waroon a def ci ñoom duñ ko def ci ñoom waaye dafa des jënd da leen di tëbal léegi nag sénégalais ñu ngi seetaan mais bu ëllëgee lépp ci sunu kaw la lay lay lay dal ndaxte xale yooyu ñu nar a te jànguñu li ñu waroon a jàng xam-xam bi ñu waroon def defuñu ko ci ñoom bu ëllëgee dina nekk ay journaliste lépp lu ñu jox ci xabaar du wér dina nekk ay magistrat képp ku ñu àtte da nga am lu la naqari hmm. dina nekk ay médecin képp ku feebar da nga wuti foofu fajoo ji wala da ngay dee hmm. dina nekk ay ingénieur na fee tabax ay bâtiment ñu dal suñu kaw parce que ñoom danañ nekk ay génération boo xam na leen comme ni ma leen tuddee hmm. génération covid dix neuf sacrifié kon nag tey président Macky te dëggal na loolu kon nag man li may wax daal mooy na sénégal yëpp xam ni situation baa ngi nii bàyyee nañ ñu suñu bopp ci nekk léegi yaay yaa yore sa cëggal guy léegi nag bu ko defee bu ëllëgee bu jafe-jafe yi ñëwee nag ñun ñëpp nañ taxaw rek jàmmaarloog jafe-jafe yi. jërëjëf monsieur Mbodj maa ngi lay gërëm bu baax a baax. maa ngi leen di sant di leen gërëm. jaajëf Dame Mbodj secrétaire général CUSEMS e authentique ah, moo doon àddu léegi rek ah, te li nga xamante ni wax nañ ko tamit dégg nañu le discours ah, bu président de la république Macky Sall félicité na jaajëfal na ñi nga xam ñoom ñooy élèves yeeg. ak jàngalekat yi nga xam ñoo nekk ci examen te ñu ubbi le vingt cinq bi ñu génn waaye la ñu jàpp mooy gisuñu ci cour bi wala boog